طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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 أتيت بسلوي ثم أهلي وإلتتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم ويب سايت بي www.barhamuniverselmedia.com ñu ngi fii ci boutique euh, Cheikh Multiservice Chex Mahi Cissé Multiservice Chex Mahi fii Cissé ñu fekk fii ay mbokki taalibe yoo xam ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ne mbokk taalibe yoo xam ne ñu bëgg Cheikh Mahi lañ ñu bëgg liggéey bi lañ euh, gannaaw bu leen leen yoo seriñ bi ñu ngi leen di leen ziar tur yi ak euh, fan la multiservice Cheikh Mahi Cissé nekk. ñu ngi leen di fay waa Barham Média Universel ñu ngi rafetlu seen teewaay di leen ndokkeel bu baax di wax ne maa ngi tudd Vieux Sarr Mahi Cissé service nag mu ngi nekk ginnaaw ra Pikine ginnaaw raay euh, ginnaaw raay nord quartier Damoir boo passé centre commercial bi rek foo laajte Mahi Cissé multiservice nañ la fa indi. incha allah. jigéen ñaa ngi nii jigéen ñëpp. يعمهم التشفيع أجمع أكثر أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع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 وذا الحبل موثول فما الوصل يمنع فلو سواني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير من السيرفيس دفاع waa euh, entreprise la ba nga xamante ne lépp a ngi ci biir maa ngi si multiservice am na cosmétique maa ngi si multiservice day jaay produit marocain maa ngi am na couture di def peinture yére kon maa ngi si multiservice dafa nekk entreprise boo xam ne dafa yaatu yaatuwaay ba nga xamante ne lépp a ngi ci biir waaw. gis nañ fi ay dàll dàll yi fan lay bàyyeekoo. waaw maa ngi si nag ay produits importés la yor yii ñu ngi bàyyeekoo ba Maroc produit yi Maroc la jugee jàllaabe yi tamit Maroc la jugee mooy nekk comme modèle bi nga xamante ne si laa sol ak sama waay bi tamit sol yooyu yëpp ci ak coppite yi nga xamante ne mooy coppite pays bi yooyu yëpp am na ci marché proximité yëpp ay produits importés la yëpp a ngi bàyyi ko Maroc Fès. macha allah euh, képp koo xam ne bëgg na leen jot si yan numéro la leen mën a jotee Cheikh Mahi sa multi service. Mahi sa multi service ku ñu bëgg a jot da ngay woote ci 77 431 47 40 wala nga woote ci 78 325 58 66 wala nga woote aussi ci 78 122 77 77. macha allah wala nga woote tamit si fixe bi muy 33 834 22 29. macha allah gannaaw gi nga xam ne woon nga ñu produit cosmétique yi nga xam ne moom ngeen di jaay ak dàll yi ak jàllaabe yi am na yeneen tamit yoo xam ne gis nañu fi comme ay consommable informatique comme lan ak lan la. waaw maay simil simil comme ni ma ko waxee sànq dafa yaatuwaay yaatuwaay ba nga xamante ne lépp ngi fi. damay wax ne maay service et au service de la fayda mhm. maanaam tey développement fayda bi lañ soxla mhm. ba nga gis moo tax ñu indi photocopie bi nga xamante ne day génne mbooleem carte bi nga xamante ne mbokk taal bi soxla nañ ko parce que gis nañ ne fayda bi tey mhm. euh, day am nga xamante ne dañuy soxla ay carte invitation ay carte barkelu ay flyers carte de visite lépp li nga xamante ne informatique la rek maay service bi da koy defar waaw dañuy installé tamit machine di di tape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 transfert d'argent soit Wari Orange Money Ria yooyu yëpp maa ngi service maa maa ngi saisir ñetti service mu koy kii léegi. Orange Money beeg Wari Joni Joni Ria ak yooyu noonu maa ngi service aussi day def assurance assurance toute balance maanaam day assurer incendie assurance voyage assurance automobile toute balance daal da koy assurer en même temps aussi tamit day defaale réservation hôtel di defaale billet. attestation bi aussi loolu lépp magistrat ministre bi da si yëngu tamit. magistrat ministre bi mun nga woote ci 77 431 47 40 wala nga woote ci 78 325 58 66 wala aussi nga woote ci 78 122 77 77 wala nga woote aussi ci fixe bi muy 33 834 22 29.